commission sociale bu Touba ca kanam di commission bopp liggéeyam mooy taxawu mbooleem ñi nga xam ni ay néew ji doole lañ te nekkee ci dëkk bu sell bii di Touba taxaw leen ci jébbal leen ak dund taxaw leen ci wàllum faju ak jëndu ordonnance yeesal seen dëkkuwaay yi taxaw daara yi ak daara kaamil yi nga xam ni ñoo nekkee ci dëkk bi ci atum 2023 bi commission sociale bu Touba ca kanam amal nañ seen septième édition sociale Ramadan ñu amaloon ko samedi dëppoo woon ak le 1er avril boo xam ni at mu jot dañ koy def ci biir weeru koor gi ngir taxawu néew ji doole yi nga xam ni ñoo yi ngir jàppale leen ci ak dund commission sociale bu Touba ca kanam ci njiital sëriñ Mourtada Mbacke moom sëriñ Abdoul Fattah la mu njëkkee mooy dem ci cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom sëriñ Bassirou di xalif général des Mourides ànd ak sëriñ Abibou Mbacke moom cheikh Mouhamad Fadal ngir sàkku ci sëriñ bi ndigal cheikh Mouhamadul Mountakha rafetlu liggéey bi bu baax jox leen ci ndigal waaye njëkk a yëkkati alalam def ci jébbal leen fukki toni ceeb ak fukki toni dugub ginnaaw loolee la sëriñ Abibou Mbacke moom cheikh Mouhamad Fadal def ab soññee woo mbooleem jullit yi rawatina taalibe yi ci liggéey bu am solo bi xam ne commission sociale bu Touba ca kanam moom lay amal di ci jàppale néew ji doole ji liggéey bi nag da ko nos bu baax a baax ngir séddale mi lépp mën a jaar yoon moo tax mu amal ay recensement ci mbooleem sancaan yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bii di Touba ak li ko wër mu taxawal juróomi équipe ci recensement bi yebal ñeenti ci mbooleem xibla yi muy penku bi soowu bët saalum ak bët gànnaar juróomeelu équipe bi nekkee ci biir corniche bi di amal boobu les recensement ci recensement bi nga xam ne ci la ñuy bindee ñi yeeyoo ndimbal gi ci lañ leen di jébalaale benn ticket boo xam ni ci la ñuy xaatim mboolem li nga xam ne moom lañ leen fas yéenee jox mu toll ci saako ceeb bu juróom fukki kilo ak juróomi kilo suukar ak juróom benn téeméer yoo xam ne moom la ñuy paasee recensement bi nag yaatu woon na lool ndax daan nañu liggéey ba ci biir guddi gi lu toll ci 3470 familles muy ñetti junniy njaboot ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk yoo xam ni jot nañu ci ndimbal gi ndimbal gi nag yemalewuñ ko ci biir famille yi rek ndax lu toll ci téeméeri daara ak juróom fukk jot nañ leen a taxawu boole ci juróom-ñaari association yoo xam ne dañoo nekkee ci gox bi rawatina mu nekk ay association yoo xam ni ay handicapé lañ ci journée sociale bi amaloon nañ fa waxtaan wu am solo woo xam ne dañ ko jëmale woon ci naka lees di def ba génn ci ak ndóol loolee ay boroomi xam-xam def ci ay jàngale yu am solo yoo xam ni mboolem ñi fa teewoon jariñu nañ ci bi ñu tàmbalee distribution bi muy jébbale ndimbal gi commission sociale bu Touba kanam magasin yoo xam ni dafa def ñeent ci mboolem ñeenti xibla yi muy penku soowu bët saalum ak bët gànnaar juróomeelu magasin bi mu def ko ci digg dëkk bi magasin yi nag fi la mboolem ñi nga xam ne ñoom la ñu recensé woon waroon na ñëw jël si nga xam ne moom la leen commission sociale bu Touba ci kanam jébbal ci biir weeru koor yi foo ci dem rek même procédure bi nga fay fekk boo ñëwee jébbal sa ticket muy biñ la joxoon ca ba ñuy recensé waaye saytuwaat sa tur ndax mi ngi ci liste bi laataa ñu lay jébbal gi leen ndimbal li leen nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon liggéey bi indi nañ ci ay leer leeral. nga xam te ne ñoom ñoo jëlee ci magasin bi mi ngi nekk ci xaw ga daaru manaan busoobe daaru man rahman kàcce euh, maam jaara yoon daaru ak euh, teenu maam seex ak daaru xadim ak euh, kër Baye Laat ak talib bes bu ñëwee dañuy dajale tikke yi bu ko soxna Aswaaj dajalee ba pare ñu toog bu rappelé ki nga xam te ni joxe na tikkeem ñu xool ko ci liste bi ñu ko ci xoolee ba pare ba gis ci turam ak numéro téléphone am ak numéro identification bi daal koy woo daal koy jox sëñ Ablaye Cissé mu daal koy yabal mu daal koy jox li nga xam te moom lañ ko a jox soxna Fatou Sow jox ko xaalis bi imam Malick taxaw fee contrôlé ko ba xam kii liñ ko wax jox jox nañ ko ko wala déet. saaku ceeb ak juróom kilo suukar ak juróom-benn téeméer. asalaamaaleykum. <coughs> ñu ngi leen def man daa am ku ñëw sama kër jox ma ticket bi. ne bu naa ñëw indi ko fii ci euh, magasin Touba ci kanam bu ñu jox ni saako ceeb juróomi kilo suukar ak trois mille francs loolu lañ jox yow yaay Cheikh dëkk fan hmm, Mbuleel waa Touba kanam ñoo fa ñëwoon jox la ticket bi waaw incha allah fii lañ lay joxe saaku ceeb bi ak juróomi kilo suukar ak trois mille francs yi nga xam ne moom nga koy yóbboo ba sa kër ci mboole magasin yi foo ci dem fu ne da nga fa fekk mbooloo mu takku ñii indi ay moto ñii ay charrette ñii ay oto ngir mën a yóbbu ndimbal gi nga xam ne moom lañ leen jébbal ginnaaw ñetti junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukki njaboot gi nga xam ne jot nañ ci ndimbal gi am na it yeneen barab yoo xam ne commission sociale bu Touba ca kanam yóbbu na fa ay ndimbal ci biir weeru koor gi bokk na ci orphelinat Maam Diakha bi nekkee ci Touba Mbacké jox leen lu demee ni ki meew tàndarma dugub ak suukar ngir ñu mën di ci toggal gone yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci barab bi noonu lañ ko defee ci daayira Muxaddamatul Xidma ci jumaay Tuubaa ju mag ji jox leen seenu barkeelu ci li nga xam ne lañ leen di jàppale ci ndog yi nga xam ne moom la ñuy baaxee mboolem jullit yi nga xam ni dañuy ñëw ci biir jumaay Tuubaa ji di fi ndogoo si ci biir weeru koor gi dem nañu ci daari kaamel yi nga xam ne moo nekkee ci biir jumaa ji ñi fi nekk nga xam ni njàngum alxuraanul karim rek moom mooy seen métier ñu jébbal leen ndimbal gu tàkku daari kaamil ji nekk ci jumaa ji moo taxoon ñu sos commission sociale bu tubaa ca kanam moo tax ndimbal gi nga xam ne moom lañ leen jébbal ci biir weeru koor gi jotewul dara ak li nga xam ne moom lañ warloo ak ñoom le 15 bu nekk mission sociale bu Touba ca kanam di leen ko jox noonu it lañ ko defee ci daaray kaamil yeneen yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi bokk na ci daaray kaamil ji nga xam ne moo nekkee ci daarul minan commission sociale bu Touba ca kanam indi na fi ndimbal bàyyi koo fa ñëw ci daaray kaamil ji nga xam ne moo nekkee ci péncum sëriñ soy bu Mbàkke ci Touba jébbal leen ñoom it ndimbal ku takku noonu it lañ ko defee ci daaray kaamil ji nga xam ne moo nekkee ci daarul xudduus ci bayti noonu it lañu demee ba ci daaray kaamil ji nga xam ne moo nekkee ci daaru salaam noonu lañ ko wéyelee ba ci daaray kaamil nga xam ne moo nekkee ci njaareem ci kër kaamil ji nekkee ci daarul moxti it yóbbu nañ fa ndimbal gu tàkku ak daare kaamil gi nga xam ne moo nekkee ci mbàkki xewar mu toll ci juróom-ñaari daare kaamil yoo xam ni commission sociale bu Touba ca kanam jox na leen ay ndimbal ci biir weeru koor gi social ramadan bu 2023 bi nag commission sociale bu Touba ci kanam def na ci ay jéego yu am solo ndax jot naa séddale ci ceeb lu toll ci téeméeri tonne ak juróom-benn fukk ak ñett muy 163 virgule 025 tonnes bu dee suukar mu séddale ci 18 virgule 14 tonnes ak 14 virgule 8 tonnes ci dugub bu dee tànda mu jot si séddale lu toll ci 1 tonne virgule 16 jot a séddale ci wàllum transport ak daare kaamil yi lu toll ci 10 millions 455 mille mbooleem li nga xam ni commission sociale bu Touba ci kanam def na ko ci social ramadan bu atum 2023 bi xayma xayma nañ ko ci 85 millions 405 mille 296 ci franc CFA muy juróom-ñetti fukki millions ak juróom ak juróom-ñetti fukki junni yu teg nii mu ko amalee ci biir weeru koor gi noonee ko commission sociale bu Touba ci kanam amalee ci korite gi defaat ay recensement ci mboolem xibla yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi ngir fas yéene leen taxawu ci korite gi njaboot gu ne jébbal nañ leen lu toll ci ñetti junni ci sunuy koppar jàppale leen ko ngir mu mën a doon seenub dépense ci korite gi ci korite gi muy atum 2023 bi jot nañoo jébbal ci ndimbal lu toll ci juróom nit ak ñaar fukk ak juróom mbooleem koppar yi nga xam ni moom la commission sociale bu Touba ca kanam def ci korite gi ñu ngi ko xayma ci 16 millions 555 mille francs CFA commission sociale bu Touba ca kanam di santaat bu baax mbooleem jullit yi waaye di ci jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des mi nga xam ni at mu jot kenn du ko jiitu ci jëf ci commission sociale bu tubaa ca kanam sant mbooleem ñi nga xam ne jëf nañ ci mbooleem ñi nekk ci biir réew mi di Sénégal ak ci bitim réew liggéey bi nag day wéy du taxaw benn yoon ñëw leen gaaw ànd ak commission sociale bu kanam taxaw néew ji doole ji nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bii di Touba jaamu yàlla ci jaami yàlla yi